avant de tourner, mais je may commencer remercier d'abord madame la maire bi nga xamante déplacement parce que problème de transport pour nous. Je biñ ko expliquer nous problème de nañ aussi jox denrées la c'est de bon physiquement. parce que boo demee Kaolack tey jii tey xale yi ñoom amuñ terrain sax bu ñu entraîné donc dañuy dem ci ay terrain yoo xamante ne amul projecteur donc entraînement yi 18h lay commencé 18h30 mu commencé lëndëm donc dañ leen di libéré te aussi ay xale yoo xamante ne leen dañuy ñëw nii terrain fayuñ leen benn dërëm donc ñoom aussi dañuy jàpp ci équipe bi pour équipe bi mun a dem. waaw bu ñu commencé ba léegi xale yi leen dama leen di remercier ñoom aussi dama leen di remercier na leen gàcce ngaalaama parce que wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee suñ deuxième match bi 5 points la points, un point donc nga gis ne kon donc commencé am amélioration parce que xalé yi bari ci nek amuñ expérience c'est la première fois ñuy nous tournoi amna ñoo xamante ne bii deuxième fois té miinuñ parquet bi aussi. ñun Nous euh, am un problème de compétition bu baax baax ndax euh, kawla buñ nek terrain bu baax sax de entraîner ko té lool tamit dafa bok ci équipe buy motiver équipe. ñom ñoo ñu compétition. ndax ñoom dinañ joué match yu bëri par rapport ak ñun bu ñu joué suñ tournoi rek jeex nañ duñ am moyen yu dem joué waat ak yeneen équipe yooyu noonu te ñoom ñoo ñu ëpp expérience ndax ñun match yi dañuy premier quart-temps deuxième ba troisième quart-temps dañ ciy nekk mais quatrième quart-temps si lañ ñu commencé gagné ndax kii nekku fi jàppuñ yooyu noonu mooy loolu te ay xale lañ yor te ñu ngi doog a ñu ngi doog a joué si parquet bi yooyu noonu expérience bi dafay des.